ay ci mu ngoog ñu dikkaat ci plateau bi ànd ceeg Pape Malick Thiam Pape Malick ngi lay nuyu dalal ak Thiam. alors euh, Pape euh, l'actualité euh, politique euh, dañ koy tàmbali ki nga xamante ne di le président euh, Bassirou euh, Diomaye Diakhar nag moom nag ci rapport assise de la justice mu ci àddu. waaw président Bassirou Diomaye Faye démb dalal nañu ñu nga xamante ni ñoo nekkoon ci dialogue euh, national bu 28 mai dernier di waxtaanee tamit ci lu nga xamante ni moom moo di euh, euh, assise du la justice réforme de la justice ñu jébbal ko li nga xamante ne moom moo di Euh, moo di rapport bi euh, ñoom ñu waxtaanee ci lu nga xamante ni moom moo euh, jëm ci assise yooyu. Mhm. mais li nga xamante ne moom lañ ci jàpp moom moo di conseil mbirum conseil supérieur de la magistrature ndax président di ci génn wala du ci génn moom réponse am leer na nee na point bi nga xamante ni moom la am ay discussion te nit yi déggoowuñ ci daanaka magistrat yi déggoowuñ ci moom mooy. Euh, d'accord ñu ci li nga xam ne président des ci conseil supérieur de la magistrature am ñoo xamante ni euh, dañu bañ ne euh, président foog mu toog ci conseil supérieur de la magistrature moom nag nee na waxul dafay toog waxul dafay dem mais li nga xamante ni moom la rapport bu wax nañu dem question boobu ñu càmbaraat ko bu baax a baax bu ko defee bu ñu ñëwaatee moom dina ci joxe lu leer dina wax ma xam dafay dem wala dem mais defu ko obsession Euh, ndax dafay génn wala dafay euh, wala wala dafay rester euh, boo xoolee magistrat yi am na ñoo xam ne ànd nañ ci am na ñoo xamante ni ànduñu ci mu ne moom xam na lan moo tax lan moo ko teg fi mu nekk nii mu nekk président de la république donc dina def lu nga xamante ni moom moo convenir ñi àddu ci question boobu noonu te loolu nag du def loo xamante ni moom mhm. arrangé wu ko hectares. Mhm. Euh, de mangrove. waaw à Saloum ak fële nga xamante ni moo di Casamance. waaw euh, 3000 yi dañ ko def. Euh, Euh, ngir dañ ko jëmbat euh, ci Casamance ak ci Saloum euh, ci ndox yi fleuve yi nekk foofu fleuve Casamance ak fleuve Saloum ngir teg ngir mu am ay jën ak ay mhm. sipax ak yooyu noonu mhm. parce que dañu gis ni espèce bi dafay disparaître foofu donc de amoon naa benn ndaje bu amoon en Casamance ci lu nga xamante ni projet ALCOD ABC mangrove noonu la tudd ñoom mille hectare ci la ñu war a jëmbat lii di ay mangrove ci dex gi Euh, bu ko defee euh, mu mën a profité jigéen ñi nga xamante ni la plupart dañ ci liggéey ci Saloum ak ci euh, fi nga xamante ni moom moo di moom moo di Casamance loolu nag Alcott Blue Carbon Mangrove benn ONG boo xamante ni ONG américaine lëkkaloo si ak ministre de l'environnement ak tamit ñi nga xam mooy direction parc national ak tamit ni nga xam ne ñoo ñoo nekk ci gox goxaat yooyu noonu ngir fexe ba nga xamante ni si dex gi dina am ay richesse maanaam ni nga xam ne ñuy ñëw pour xamante ni dañuy ñëw nguur ut ngir ut loo xamante ni lu ñu am ci wàllu koom euh, dinañ ci euh, dinañ ci mun a jëfandikoo bu bu baax a baax ne dinañ rebois dinañ reboiser nag lu toll ci 97 hectares ci euh, réserve bi euh, leneen li nga xamante ni euh, wax nañu ko moom mooy ay activités yoo xamante ni jigéen ñi ñoom ñoo ci yëngatu ci wàllum développement durable ak tamit fexe ba aar li nga xamante ni moom moo di dex moo di Saloum ak fi nga xamante ne moom moo di Casamance. les états de l'AES war nañu dajaloo ci week-end bi fële ca Niamey. waaw tey jii tey la vendredi tey jii lañu war a agsi. Mhm. suba samdi la ñuy tase Niger Burkina Faso ak Mali ñoom moom moo nekk seen premier sommet. Eh, ci fi nga xam mooy chef d'état ay si mooy ñoom ñoo génnoon CEDEAO eh, ñoom nag waxtaanee eh, li nga xamante ni oh, moo mooy seen ay projets yu bees nan la ñuy def ba défendre li nga xam moo di seen territoire ndaxte terrorisme bi daf leen a sonal Assimi Goïta Ibrahima Traoré ak. général Abdourahmane Tiani ñoom ñoo koy euh, amal euh, loolu nag ñoom ginnaaw bi nga xam ne pays France France génn na euh, ñu lëkkaloo ak Russie Turquie ak Iran am yeneen partenaires yu bees amoon nañ fan yi la passé ay ministre des affaires étrangères yoo xamante ni ñetti dëkk yi la ñu bàyyeekoo woon ngir waxtaan nan lañ mën def ba def confédération d'État ngir adopté si li nga xam moo de seen statut suba nag le samedi sommet bi di di tàmbale tey jii la ñu chef d'État yi war a foofu ci ci Niger Abdourahmane Tiani war leen a dalal euh, ñoom nag dañ discuter point boo xamante ne point bu am solo la moom mooy soppi li nga xam moo di xaalis nan lañ mën a def ba génn ci CEDEAO ñu dem fële ci États-Unis daal di ko fay ndar képpe waaw euh, États-Unis jamono ji mooy question bu ñuy poser la plupart du temps mooy Joe Biden ndax dina dem ci élection présidentielle yi ndaxte 28 juin ba passé il y a une semaine. Mhm. Euh, dañu dafa débat ak Trump je pas moo xam seetaan nga ko euh, mais daal dañ Joe Biden il était catastrophique ndaxte dafa màgget moom mi ngi am juróom benn fukki at ak benn 80 juróom-ñett fukki at ak benn 81 ans. Euh, moom la am daanaka dafa màgget. li mu mhm. wax xamu ko jaxase ay mots donc Trump xaw na koo rey ci débat bi. Mhm. Euh, loolu lu ñu wax ñu ne nag parti démocrate dañoo tiit euh, ndaxte dañuy ut ku ko remplacer. Mhm. ngir dem ci élection présidentielle yi xam ndax ñoo Joe Biden wala dafay retiré waaw wala déet. lu lu ñu jàpp rek moom mooy élection yi moom ñeenti weer moom moo ci des. ñeenti weer moo ci des jërëjëf Pape Malick ñu jaajëfal la bu baax a baax alors dañuy enchaîner rapidement ak li nga xamante ni moo di suñu dossier du Le dossier de Pape Malick Thiam, c'est tout de suite. matinal Allô Sénégal euh, ak suñu dossier du jour ñu di ci ànd Pape Malick Thiam Pape Malick mm-hmm. la la ñuy waxtaan euh, Aïcha bon Euh, tey euh, discours 3 juillet 2023 la ñuy waxtaanee lu nga xamante ne moom mooy discours bi président Macky Sall defoon euh, la moo gënoon marqué esprit nag moo ma dafa waxoon ne mbirum troisième mandat bon arrêté deux mandats rek lay def dootul représenté wu loolu mu nekk discours boo am solo. boo xamante ni si wàllu politique Sénégal si wàllu démocratie am na ay répercussions euh, ba tey jii bon defoon nañ ci euh, benn benn élément boo xamante ni wax nañ ne discours bi lan lañ ci wax ak tamit répercussions politiques yi nga xamante ne euh, moom moo ci amoon ba tey jii ñu seetaan loolu. sama dogal bi ma xalaatee ba noppi mooy du ma nekk candidat ci élection présidentielle yu 2024. 2024. discours bi daanaka mu dakkal fu président Macky Sall moom mu defoon ko ci 3 juillet bébé su doon mandargaal Macky Sall lu mu wax du def troisième mandat ñu doon ko jiiñ ni dafa bëgg a toggaat ci nguur gi loolu nag lu ñu jàpp la ndaxte lu njëkk la ci histoire politique Sénégal amul benn njiitu réew boo xamante ni moo nekkoon ci nguur gi bàyyi ñu ko doon jiiñ mbirum troisième mandat lu ñu jàpp la tamit ndaxte lu njëkk la président de la république bàyyi nguur gi organiser boppam ay élection histoire jur leneen loo xamante ni dafa tiis ci Sénégal reporté élection yi moo ci topp bi nga xamante ni juróom-ñaari weer lañ ci tekk ñetti nit ñàkk ci seen bakkan mu jur ay crise institutionnelle instabilité am ci dëkk bi ay jàmmarloo yu métti métti ci état dogal yi nga xamante ni moom la jël li ci topp moom mooy ndax dinañ def élection yi waaw wala déet élection yi nag mu wujj ama conseil constitutionnel dogal ko mu nekk loo xamante ni tamit ci histoire politique Sénégal am datub 3 juillet 2024 boobu ba léegi mu nekk bennaat histoire sax jàpp ko bu président Macky Sall def beneen bi mu jàppat ko ndaxte lu ñu xaatim la ci Sénégal nu muy doxee ak tamit lan moo tax loolu di firndeel li nga xamante ni moo ubbi élection présidentielle yu 2024 tax ba nga xamante ni président Bassirou Diomaye fay ak Ousmane Sonko di jiite tey ji waaw ah muy noonu comme ni ñu ko gisee euh, discours bi nag mercredi bi passé moo nekkoon 3 juillet 2024 donc am na un an Macky Sall prononcé euh, discours euh, ngir wax ne dafay retiré wu dootul def li nga xamante ni mooy troisième mandat ginnaaw bi nga xamante ni coow li toppoon na ko Macky day def troisième mandat day def troisième mandat moom ni ñaari mandat rek lay lay lay def daal di dem bon discours bi am na yeneen point yoo xamante ni mu soulevé na ko lu wen ni wàllu affaire violence affaire cyber attaque kii wala sax intégration ñi nga xamante ne ñoom ñoo pertoon seen ay droits civiques ku mel ne Khalifa Sall ak mhm. ñeneen ak ñe Karim Wade ak ñooñu bien que Karim Wade bokkul ci élection yi mais boo luñ jëgën a jàpp daal moom mooy Macky Sall le fait que mu wu ne du def lu nga xamante ne moom moo di moom moo di moom moo di troisième mandat loolu ak coow lu mbir mi juróol yëpp ak mbiru mhm. Abdoulaye Wade bu ñu ko jëlee en 2000 en 2011 coow li fi amoon Macky Sall ñu ñëwaat Euh, di coow mu mel ni daal lu am lu am lu am solo la ndaxte euh, mën nañu wax ni à partir de là Sénégal dootuñu tabbi ci euh, di coow te voilà troisième mandat jeex na fi daanam parce que Macky Sall moom moo ko moo ko dakkal ci mhm. discours ci discours bi alors comme dañuy fàttaliku mhm. discours bi nga xamante ni Macky Sall defoon na ko le juillet politiquement mhm. ban ban appréciation nga am ci discours bon comme lu ma la wax politiquement parce que moom moo tax ñu organiser ay élection bien que entre temps bon je l'ai dit dans le papier entre temps y a eu report en février le 3 février am na report report bi juróon ay coow euh, report bi ay ay euh, donc euh, élément bi mu bu mu discours bi mu juree ay coow non je veux mu juree ay coow mm. wax ne xaw na nëbbu lu nga xamante ne mooy Macky Sall ne mhm. na dootul defati troisième mandat parce que après bon dañu wax ne waaye Macky Sall bëggul dem dafa bëgg rester et tout bien que am na amoon ay félicitations yu bëri bu mu waxee ne dafay mhm. dafay dafay retiré wu affaire report bi tâche la ci lu nga xamante ne mooy mandature Macky Sall mais encore une fois moom moo jël le dessus sur parce que lu ñuy retenir à la fin mooy la def mhm. donc dem na euh, pour man report bi en ce temps bu muy am c'était c'était important parce que bon c'était un choix bu nga xamante ne loo loo xamante ne c'est inimaginable c'était inacceptable que ñu def ko mais peut-être benn benn élément la ci système démocratie démocratie Sénégal parce que le fait que mu retiré wu ne du def troisième mandat loolu c'était un acte fort parce que aussi dafay participer ci loo mooy renforcement démocratie maa ko doon wax sànq à partir de maintenant euh, kenn dootul mënati ne euh, dafay def euh, jëfa def troisième dama def donc jurisprudence bu bu solide la boo xamante ni mm-hmm. président Macky Sall moom moo ko moom moo ko def d'autant plus que juin juin 2023 mm-hmm. non si si juin 2023 Macky Sall wax wax na ne du conseil constitutionnel le consulter si avis mm-hmm. mu wax ko jox ko aval di ko Euh, mën na nekk lu nga xamante ne moom moo di candidat mën a def troisième mandat mais bon Macky Sall sax wax na ko nee na moom am na ab choix bu fekkee ñu bëri d'accord ñu si am na choix def troisième euh, def troisième mandat mais nee na si deux mandats lay tënku loolu boo renfermé ci lu nga mhm. xamante ne moom moo di moom moo di alors laata ñu gën a xuus ci waxtaan wi da nga am beneen élément non c'est bon c'est bon c'est bon alors est-ce que da nga jàpp ne jusque là euh, c'est le meilleur discours mais mais mais mais meilleur discours bon c'est c'est trop en tout cas ça fait partie des discours les plus historiques euh, depuis l'indépendance jusqu'à maintenant euh, maa ngi wax indépendance mais boobu peut-être discours bu nga xamante ni jàpp nañ ko c'était en euh, septembre 58 ba discours bu Valdiodio Ndiaye defoon boobu aussi c'était un c'était un discours marquant jusqu'à présent parce que discours boobu moom moo doon wax De bu mu defee le tour pour wax ne laaj Euh, dëkku africain yi naa dañu bëgg indépendance et tout ba Senghor nekk foon Dia nekk foon Valdiodio euh, moom moo fi nekkoon moo représenté woon le gouvernement moom moo wax ne euh, voilà ñun ñu bëgg indépendance unité africaine et cetera confédération et cetera boo jëlee tamit presque bon vingt ans plus tard. Mhm. Senghor def na benn discours bu historique bien que si format yi c'était différent mooy mu décembre quatre-vingt bu muy wax ne. Euh, dafay dem. Mhm. Abdou Diouf wutu ko. Mhm. loolu tamit c'était historique parce que c'est jamais arrivé en Afrique que euh, chef d'État en exercice quitté comme ça jox. Euh, keneen ko nga xamante ne moom moo koy wutu présidence mën nañu wax tamit mën nañu si yokk tamit boo si tu veux peut-être 2000 mars 2000 Abdoulaye Wade bu mu gagné élection yi bon dem fële stade Léopold Sédar Senghor Euh, ba fay tuddul woon sax stade Léopold Sédar Senghor stade Amitié la tuddoon à l'époque euh, def euh, li nga xamante moom moo di prestation serment avec soixante dix mille soixante dix quatre vingt mille personnes bon wax ni dafa utal ndaw li ak espoir bu mu suscité woon yëpp donc loolu aussi tamit c'était c'était historique mais bon pour wax ne rek c'est pas le c'est pas le discours phare bu nga xamante ne mm-hmm. si histoire politique Sénégal moom la ñu retenir mais bon c'est très important oui. parce que dafay wane ne Macky Sall deux mandats la def et puis loolu moom kenn mënu ko kenn mënu ko dindi kenn mënatu ko dindi am na solo merci Pape ma bàyyi la nga conclure bon lu may lu may terminer peut-être moom mooy euh, ci euh, discours bi euh, répercussion politique yu nga xamante ne moom la jur. mën nañu wax ne Macky Sall su fekkee retiré wul Bassirou Diomaye Faye du nekk euh, ne moom mooy mën nañu wax ne du nekk moom mooy moom mooy moom mooy président histoire bi mën na mën na fexe mën na changer li nga xamante ne mooy cours de l'histoire au Sénégal ba pare aussi tamit. kenn xamul après lan moom moo doon lan moo doon ñëw surtout lu ma bëgg a wax moom mooy discours dina tax ba nga xamante ne dinañu jàpp ci histoire loo xamante ne bu fekkoon naneen la demee kenn du ko kenn du ko jàpp boo tax la moon yaay des discours yoo xam ne ba surtout en temps parce que discours d'habitude en temps de guerre si lañu gën a roté discours ñu gën a roté si àdduna bi en temps yoo xam ne am na solo mais ñun fii euh, li nga xamante ne euh, moom moo ñu concerné moom mooy discours 3 juillet bi euh, bokk na si lu nga xamante ne démocratie Sénégal mun nañu wax ni taaral na ko parce que moom moo tax gouvernement bi Euh, en partant parce que mun mënuñu wax ne Macky Sall su fekkoon dafa def def troisième mandat tamit mën na bañ a mën na bañ a gagné Bassirou Diomaye Faye ak Sonko euh, mën nañu mën mën nañu gagné euh, mais boo jëlee loolu nga xamante ne moom mooy héritage ci Bassirou Diomaye Faye lu mu gouverner laneen li moom moo di 3 juillet Euh, bokk na ci lu nga xamante ne moom mooy consolider mooy renfermer li nga xam moom mooy jurisprudence deux mandats Sénégal. Mm. désormais euh, discussion deux mandats dootoo ko dootoo dootoo ko dootoo ko déggati. Euh, discu discussion trois mandats dootoo ko déggal Sénégal deux mandats ngay def. après après après nga dem parce que tout simplement il y a eu un acte fort nga xamante ne. Mm, le président sortant mm-hmm. defoon na ko et puis légitime en fait on ne juge pas sur Macky moom moo moo d'un bon président quoi en fait on juge le discours mhm. euh, le discours keneen mënul na ko def mhm. keneen mënul na ko def taxawa taxaw si taxawaay bu nga xamante ni moom am na ko loolu moo tax bon voilà je je tenais à magnifier ça merci beaucoup Pape Malick jaajëfal nañu la bu baax a baax dossier bi am na solo euh, vu que histoire moom mhm. dafay baax ngi fàttaliko li nga xamante ni jot na fi xew merci beaucoup jaajëfal naa la bu baax a baax il est huit heures passées de quarante minutes euh, leen ngeen et juste après ñu mu dikkaat ci plateau bi